bokk na ci suuf su doyul ak càcc yi nga xam ne jël na leen ni ki itam béykat yi ci geneen anam di sàkku ay financement yu ñu tanale bu baax wàllu agriculture ak élevage foofu fee ca diwaanu Tambacounda yu nu sabale màggal bis bi ñu jagleel sous secteur de l'éléphant na lu acteurs yi di rafetlu lool wante sàmm yi ñu ngi xaar ci njiitu réew mi mu jël décision yu am solo ngir régler jafe-jafe yuy faral di tukkee diggante sàmm yi béykat yi njiitu kër sàmm yi fii ci Sénégal maanaam maison des aires nee na li ñu gën a bëgg mooy kilifa yi woote code pastoral bi waaye it ñu xoolaat texte yuy wax diggante béykat yi ak sàmmkat yi Ismaïla nee na looli dina tax ñu régler jafe-jafe yuy faral di am diggante sàmm ak béykat yi moom njiitu maison des éleveurs yokku ni dina tax tamit ne lépp lu nekk financement ndax dafa jàpp ni rek financement yi du éleveur moom waaye sous secteurs élevage bi moo ko moom naam Sénégal am na loi buy kisi sàccum jur gi wante taxul jafe-jafe gi mu ngi am ba léegi waral ku syndicat unique soxol éleveurs yi fii ci Sénégal di ci interpeller kilifa yi yi njiiti réew mi di président Macky Sall Abdourahmane Sow di ñu xamal ni rek sàcc yi sañu loolu sàmmkat yi bañu sukkandiku ci xayma yu mujj yi Sénégal am na million ci ay nag juróomi million ci ay caprin waaye te juróom benn million ovin alors Birahim Touré nag yeeg bi ñu def ko ci Tambacounda fekk amal fa tukki ne mais quantité wala nombre euh, li ci ay nag yooya ak population bu Sénégal xaw na néew de wala day ndóol gi tax na ñëpp amuñu accès ci yàpp waaw jafe-jafe la parce que secteur ñu xool euh, nuñ koy gën ñoŋale ci wàllu wu ne parce que am na euh, lu bari loo ñu ngi dem depuis plusieurs années ci Aminata ngi Ndiaye jiitu avant sax moom di dem ba ci bitim réew di jël ay nagu Brésil na ko Hollande wala di jël yeneen i tur yoo xam ne mu ngi euh, bawoo bitim réew na gën a yokk li nga xam ne moom mooy suñuy capacité ci lu jëm ci wàllu meew ci lu jëm ci wabal ak yooyu euh, programme la boo xam ne tàmbale woon nañu ko fan lañ ko être tey ministre bi ñu dénk wàllu élevage ak production animale war na ci mën a indi waaye bërëb bu ñu ko defee di Tambacounda de delà de élevage muy nag ak bu doon ak xar ak bëy yooyu mais xam nga lu jiitu sax. Mhm. élément bu euh, jëlu journée de l'élevage bi dañ la wax nela la ci bañ fa demee bu njëkk ci conseil des ministres décentralisé war na am juróom-benn nangam lañ fa def lañ fa diggee woon waaye diggee ak la nga def ñu ne la ci bureau d'information gouvernementale liñ la jox ci tableau que ne la ci téeméer yoo jël. Euh, juróom-ñeent fukki presque quatre-vingt-dix nay réalisé nañ ko mais sur le terrain est-ce que nit ñi ñu ngi koy jànkoon ñu ngi koy gis terrain dañ la naan amuñu fa chirurgien amuñu fa gynécologue amuñu fa nangam ci lu jëm ci wàllu euh, structure de ndaw ñu fa nekkoon nañ ba léegi nii ci ba ñu mujjee def conseil des ministres décentralisé ak tey du suñu wàll ci wàllu ay xëy ak yooyu ak yeneen ak yeneen yoo xam ne dafa am nit ñi ñu ngi ko doon xaar ci euh, conseil des ministres décentralisé mais conseil des ministres décentralisé pour ñëw saytu ay problème la yu am wut ci ay solution ba nga xamee ni boo fa waree dellu si waat diir bu gàtt nga mën a def benn évaluation xam ne li ma fa demoon euh, gisu ci ay jafe-jafe diggante bi ci diiru ñaari at wala ñetti at saafara naa bu dee sax quatre vingt pour cent wala cent pour cent wu jafe-jafe yi ba mu fa delluwaatee yeneen i jafe-jafe laa feex yoo xam ne naa ci wut yeneen i saafara donc loolu yëpp pour revenir sur la région même de Tambacounda boobu yëpp muy ci élevage muy ci wàll wàll bu mu mën a doon ni nit ñi bàyyi di di nëbb tey di wax li xew parce que ñi nekk ci sur le terrain li ñu dund bokkul ak euh, li ñu leen di bindal ci ay kayit. Euh, foofu euh, ay promesse yoo xam ne xëy lépp la ñu respecté problème yoo xam ne toujours changé wul ci wàllu Tambacounda. waaw boo xoolee daanaka li ñu tuddee conseil des des ministres décentralisé opération de charme la mën a tudd wala it campagne boo xam xamante ni mooy jëm ci présidentielle bu ñu dëgmal wax. mooy la muy def moom Macky Sall Tamba mooy inauguration route Tamba Kidira nga pare ci loolu ñu ne la camp militaire bi mu inauguré ko loolu tey lay doon suba ñu ne conseil ministre jeudi nañuy wax ci lu jëm ci wàllum journée de l'élevage mais alaaji boo xoolee jafe-jafe yi nga xam ne moom moo am Tamba lii fa gaañ di ut si juróom benn at gannaaw changement bariwu fa balaa ñu ko doon xam nañ fa def micro trottoir ñoom ñu dëkk Tamba waxal la ñuy dànkonteel ci ay jafe-jafe kenn xamul nu mu toll ci bépp fànn nag boo laal bu ne manqué nañuy école manqué nañuy poste manqué nañu centre de santé euh, euh, manqué nañu personnel de santé lu jëm ci wàllum yenn structure yi nga xam te nii de base yu am solo la ci dundin matale wuñ ko foofu Tambacounda kon tey bu ñu nee dañuy amal conseil des ministres décentralisé naa leneen moo la fa yóbbu mais nekkatul lu dul ñëwaat pour diggaat ñin ñi encore que la mu fa diggee woon la ci ëpp ci boppam matale woo ko kon tey léegi mooy ñuy wax askan wi li nga xam ne moom nañu mën askan doo ko dig di ko gëmloo muy garder espoir juróom nga ñëwaat bu ko digaat kooku boo ko fa waxee tamit boo demee ñu ne la wax nga fi say wax mais li lépp gëmuñu ci tous parce que ba nga ñu ko njëkkee wax defoo ko kon nañuy xool li nga xam te ni moom mooy réalité bi nga xam ne moom moo am xool ko xam la ñu mën ñu diggee ko lañ ci mënut ñu xam ne ne mënuñu ko matale parce que aussi loolu def ci douze ans presque def ko ci li nga xam ne moom mooy six mois képp ku ne bu la ko boo ko gëmee yow la neex mais xam nga ne loolu mënul nekk Mamadou euh, école français yi daanaka euh, bëri na ñi ñuy formé ci wàllu délinquance rek la ñuy mujj lay xalaatu euh, député Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké la mu ngi sukkandiku ci Cour de comptes ñi caxat-caxatee xaalisu askan wi ci ma tey loolu jaaduwul nee nañu ñam doomu daara yi mu ngi ko xamle moom bu njiital mouvement nekkal fi askan wi ci déclaration bu mu doon def ni kan doon ci élection présidentielle yi ñu dëgmal Bawol Abdoulaye Diagne. mbootaayu nekk askan wi samp am mbërëm eh, ci jongante njiitu réew mi ñu dëgmal la. bëgg naa 2024 dafa jaaroon nag ñun doomu daara yi ñu mànkoo jànkati nasaraan yëpp. ñii sàcc xaalis ñii trafic ñii def leneen waaye doomu daara bu ñu tumaal dara man day musu. noonu ñu ne duñu tàbbi benn yoon ci xeex bile. ay ñu dëgg décembre kon maa ngi laaj si appel ñun daal tracé bi ñu am. mooy Macky Sall jóge ci réew mi na gaaw loolu laay xeex guddeeg bëccëg ndax yàq na réew mi yàq na àll réew mi yàq na jikko yi mais ki ñuy fal war nañ koo xool bu baax a baax a baax ndax li ñu daloon sa Macky Sall mu bañ a dal si ko ne yenn ci ay diggante dinañ ko def tali. incha allah nabi bi nga xam moom la ñuy jëm diggante Taïf ak saajo dana ñëw teg diggante Kayal ak RN2 bi daañu ko defaraat. ne kaaraange gi def ko bu baax ci Touba. ministre de l'intérieur bi may wote bis bi moom moom wax danañ yokk effectif bi nga xam ci Touba daan tabax poste de police yi Ndindi daan defaraat commissariat bi nekk Mbacké. muy naqawaayu yenn député yi ci pencu ndaw réew mi ne dañoo fàtte li leen taxoon a falu. Abdoulaye Diagne jamono joojee ndaw yi nga xam ñoo nekk ci diwaanu Jolof ñi eh, waxu troisième candidature Macky Sall nañ ko jël teg ko ci suuf boobu la hypothèse lu xel mën a nangu ci diwaanu Thiel nekk ca Linguère ndaw ñu fa nekk noonu la ñu xalaatee li jaadu kay mooy président Macky Sall écarté jegeñaaleem yi nga xam ni defuñu lu dul di ko dugal ci loo xam ni uwa lay doon te jaaduwul jublu ci coono askan wi waaye li gën saa su ne ñuy jéem a daganal euh, troisième candidature reportage suñu Jolof Mass Ndiaye Mass na jàppandiwul xëy na yeneen xibaar dinañu jokkowaat ak moom alors Birahim euh, njiit ma nekkal fi askan wi Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké nee na nañu ñam dara ngir doxal Sénégal ci légitime mais euh, xalaatam la xalaat bu ñu mën a nangu que li xew mooy le sénégalais de manière générale moom moo pareegul ci dugg ci lu mel noonu formaté wuñu leen man ci wàllu woowu parce que quoi qu'on puisse dire euh, doomu daara muy fi di tekki defar askanam muy moom muy ku mel ni sëriñ bu euh, daara nga jàngee ci daara ci tey yaa ngi liggéey ci presse boo xamee ni ñëpp ràññ cest à doomu daara il faut pas que nit ñi jàpp ni non c'est benn euh, personne à part dafa bokk ci société te tey boo xoolee sax lu ci bëri ci société bi ñoom ñoo koy defar mais malheureusement comme j'ai dit dañoo formatéegul sénégalais wala pare ci euh, ba ci jigéen ñu ne malheureusement je dis bien malheureusement xalaat mhm. malheureusement ñu ne na jigéen jiite réew mi dafa am loo xamee ni si moom dafa nekk benn genre gaaf wala taar ci biir boo xamee ni day tax ba kii tànk jàngul tubaab pourtant li mu wax moo ci ne ñu jàng tubaab ay ñu xoolee li nekk ci ay mbirum ay euh, rapport Cour des comptes rapport nangam ak nangam dañ naan ñu jàng tubaab ñoom xam-xam ak xaralawu euh, luubal wala sàcc wala euh, détourné ci la jëm ko ne ni ñi am jàngu daara parce que am na loo xamee ni ka jàng daara am lu muy jomb ka jàng da jàng daara sur le plan euh, social am na loo xam ne am na loo xam ne jàngal nañ ko ko ca daara ji yaree nañ ko ko ba nga xam ne lu ba euh, du ko du ko sañ a def mais comme je dis et je le répète et je le maintiens malheureusement on n'a pas encore formaté on a pas encore euh, sur le plan social sénégalais boobu nga xam ni day man damay jël tànn koo xam ni peut-être jàngul tubaab parce que li ñu fi li ñu fi teg la dañu ne ni faw nga jàng école boo bëggee doon faaw nga jaar def bac wala nga am licence wala nga am master wala nga am maanaam faaw nga jaar ci tubaab bi pour mën a tekki. Mhm. alors que loolu ça ne doit pas être le cas. Mamadou Fofana. bon euh, man ala dafa am loo yi. Mhm. ñoom ñu koy defaral. les régimes se suivent et se ressemblent. ñoom ñëpp nan politiciens yi la am na ci ñenn ñoo xam ne benn benn ñoo ñi ngi def li leen war mais boo jëlee nga boole leen ñun quatre-vingt pour cent ya seeni intérêt moo leen tax a jóg xool nu ñu dimbalee seeni mbokk xool nu ñuy du seeni gafaga bu ñu pare ne woy pare nañ ci dem nañ mille neuf ba léegi même ci yeneen dëkk boo ko jëlee jafe-jafe yu ñu am yu ci bëri suñu dirigeant yi la en l'occurrence ñu ñu tuddee ay homme politique dégg askan xam na dara du ci dëgg ay naxe yoo xamante ne nii yu teguwul fenn ñenn ñi moom naan deretu askan wi dañuy def ñoom parce que bopp nan nga ko mën a jàppee bëgg foog na ne yow nii rek yow yaa ko war a yelloo mais ñooñu man dama d'accord alaaj ñu xool ñeneen ñam ñeneen pourquoi pas ni nga xam te ni ay ay dañ leen a ràññale ci dans les affaires tey mënuñu leen def président de la république pourquoi pas Ablaye Dia Sy mënu ko mënuñu ko def président de la république Serigne Mboup mënuñu ko def président de la république keneen mënuñu mais parce que il faudrait que mbir mi nekkul ne man se politicien jàng naa yenn jàng yi damay doxal non affaire bi d'abord il faut nga bëgg réew nekk hmm. patriote jiital ne man la ma tax a jóg moom mooy intérêt réew mi boo jëlee ñoo xam ne ne suuru ñu ba ñuy ñëw ci régime bi ak léegi dalay leer na lañuy des lii amuñu ko woon salaire trois millions ak la suñu ministre yi di dundee la suñu di di dundee xam nga ne lii amuñu amuñu ko woon fan nañ ko jëlee wax bu fekkee ne dafa doxalee noonu réew mi fan la jëm beneen bi muy ci discours gis nga réew jiite ko nekkul ci discours saway xool jaar-jaaru doomu aadama yi parcours dafa am solo ci nit ku la wan ne ne man kat def naa samay preuve ci sama jaar-jaar ci yorin bu sell am ne doxalin la ci création d'emploi ci taxawaay bi nga xam ne taxawu na ko société bi mais kooku war nga mën a am pour teg ko jiital réew mais koo xam te ne kii discours rek lay def takki rajo wax datatatata di ñoom ñëpp a niroo la ko jëlee ca Senghor ba léegi opposant yi noonu nañuy doxalee ña nekk ci régime bi noonu nañuy doxalee mais ba ñu ñëwee résultat de la course tey jii Sénégal gën a dellu gannaaw balaa nga koy xam nga dem ci yeneen pays sous région bi wala nga dem bitim réew ci ngay xam ne daal noppee bu ñu sax développé parce que ci esprit yu ñu nekk ak nit ñi nga xam te ñoo ñuy jiite kon jaadu na lii mu wax nii nii man dama ci ànd nañu mos keneen te bàyyi mbirum politiciens yi nga xam te ne nii seen intérêt képp moo leen tax a jóg alaaj dañuy màgg ñu wax ci immigration clandestine benn gaal boo xam ni ajuma bi doonoon fukki juróom ci weeru juillet 2022 dafa yaboon soixante quinze euh, yoo xam ni Sénégal la ñu seen gaal ga euh, daal di chaviré maanaam suux ca Daxla waaye ba léegi am na ci ñoom ñoo xam ni ñibbisi nañu am nag ñoo xam ni dañu loolee mooy li tax ñuy euh, invité kilifa yi ñu fexe taxawu seen yeneen nattangoo yi tagga tembe foofee ca Dakhla bu ñu sukkas kenn ci ñoom Cheikh Ndour la tudd nañ ko déglu dañoo bokkoon si trente gale ya nga xamante ne dañu teewoon fële na lee ca Dakhla ñu jóge ni Sénégal depuis le 23 passé le 23 novembre bon instant bi nag il y a xamante ne ñëw nañ mu des neuf Sénégalais xam instant bi nii dañ leen téye foofu noonu parce que dañoo am dañoo amee ay infection yaa ne instant bi neexut a gis ci ay bët de ce fait suñu conseil foog ñu bàyyi leen foofu noonu pour ñu faj leen voilà ñu ci woo autorité yëpp bu ñu mënee indi neuf sénégalais yaa nga xamante ne ñoo des foofu noonu muy suñuy mbokk di suñuy yi ndax eh, fi ñu jaar yëpp ñu ñoo ko dundandoo te neexul ñu ñun ñibbi si fii ni suñu bàyyi leen foofu noonu ñoom ñu nekk dans le calvaire ba tey daal alors euh, Ibrahim ba léegi jeunes yaa ngi def immigration clandestine am ñuy faatu am ñu jafe-jafe mais toujours ñu ngi interpellé kilifa yi pour ñu taxawu leen ndax ñu tàgga témbe ci Dakhla bëgg ñu rapatrier leen fii Sénégal waaw xam nga Dakhla boo xoolee fi mu nekk déjà daf sori ci Maroc la bokk mais sori na daanaka Mauritanie la gën a jege mm-hmm. autorité euh, yi nekk foofu ci Maroc Euh, jàpp naa ne ñu ngi ci def seen kéemtalaay kattan moo waral peut-être mu am benn première vague bu ñibbisi euh, di xaar ñeneen ni euh, war a ñibbisi également mais xam nga man fan laay appesantir Mansour moi je reste convaincu d'une chose ah. mooy mën nga teg ci gis nga koppar ga ñu jël jox ko benn passeur mu dugal leen ci oto wala mu leen ci gaal ñu dem ba ci biir xeexu am ci gaal gi borom gaal gi wàcc gaal gi mu ci ku mën a dawal gaal gi ba euh, ñu mujj dem euh, teer ci benn euh, dëkk boo xëy na xamuñu ko sax gis fa désert daanaka dax laa désert la li ci ëpp wàcc foofu nekk ci fa ay bu ñu xooloon xayma la ñu dugal ci xaalis ci wàll woowu mën naa am tàmbali woon na dara ci ñoom c'est une conviction personnelle mën ngaa tekki ci sa réew avec euh, moyens yi nga xam ne moom nga jël dugal ko ci wàllu immigration clandestine bi mooy gis nga euh, rapport bu ñu doon wax fan yi ñu weesu tant ngi am ay association yoo xam ne dañ naan défense des migrants soutien des migrants engagement migrants ñoom seen nekkin wala seen dund mu ngi aajowu ci ay migration irrégulière am mu ngi aajowu ci ñu mel nii ñu naan am na ñu ñu bàyyi bërëb sàngam euh, seen bato ñu ngi xaar nu ñu leen di jàppale parce que financièrement ci la yenn yenn bailleurs yi di leen jàppale euh, pour ñu mën a euh, xeex boobu mais faw suñu gouvernants yi savoir faire la part de choses xool nu ñuy mën a gën a taxawalee taxaw taxawoo ndaw ñi ba nga xamee ni génn te duñu ko soxla ndax dinañu gis sur place fii ci Sénégal bërëb bu mu mën a doon loo xamee dina tax bañu ñu toog fi on parlait de domaine agricole communal mais nañu gën a def promotion woowu mën mais nañu gën a jàppale également nga yëngu am na ay ndaw ñoo xamee ne tey tu en connais ñoo xamee journaliste lañu woon mm-hmm. bàyyi bi yore seeni tool te tey ñoo ñu gën a tekki ëpp ñu salaire ëpp ñu lépp am na ku ci nekkoon ci fii du ma tudd turam mais c'est un exemple que ñu ñu bari dañ koy jox il suffit que les gouvernants muy bii fi ne muy beneen gouvernement buy ñëw ñu gën a mën a def promotion wu li ñu naan le li ñuy def ci wàll gi nag ñu bañ see boole luubal comme ni mu amee nag ba ñu bëri di xaw a ragal <laughs> alors foofa nag élage ndaw gis nga booy yi tamit alaaj il faut ñu wax ak ñoom d'accord nañ ne nguur gi lajj na ci lu jëm ci wàllum xëyum ndaw ñi mais tamit c'est pas parce que ñàkkum xëy moo tax sa waay ngay tayle samit parce que jël ay géej gi mu leer na la yow nga faatu gën yomb nga dund loolu xaru la alaaji ñaata xale faatu ci mbir mu ne mel ci xayma nee nañ plus de mille jeunes ñàkk nañ seen bakkan ci lii nii muy màngaan donc entrepreneuriat dafa am solo ci doomu aadama alaaji man ma bañ wekk ci nguur parce que leer na la nguur la jox liggéey bi nga soxla wala créé wul condition yu mën a tey tey euh, euh, service national bi mën a embaucher sa waay ma dem jël sama dix mille dem daaj sama taawaayu ma café géeg lu ne ma dugg ci alaaj mhm. fii ñi fi nga fi dégg ñépp ñu leen nekk ay milliardaires sa waay dañoo xoslu affaire yi nànk na faut jeunes yi am patience aussi parce que doo xëy rek bëgg lépp sotteendoo il faut nga xoslu ñii dañ la naan vingt cinq ans laa construire ci lii ma ne ñii dañ trente ans laa construire ci lii ma ne suñu tund gële tey jàll picc mi waxtaane tey jii nii mais ba mu doon jaay picc benn benn la ko tàmbali benn picc fukki dërëm alaaj mhm. ba tam tey jii nii mu construire ci loo xam ne boo demee tund gële di diggante caaro ye Kër Masaar ñépp a ko fa xam mhm. jaay euh, euh, bitigu mbagg goo gis la ne ca xel ma mooy magasin la bëgg mais loolu la koy mooy ah, détermination loolu la koy mayee mooy nga am passion ci li ngay loolu la koy maye mooy nga xaar yëf ya fekk la ko fa mais munoo ne réew mi état bi lajj na man kat la ma fa gis naa dem tukki te Europe sax ñuy dem nag alaaji daa neexatul sax nag. looluy dëgg. Europe neexatul parce que fu mu nekk ku ci nekk yaa ngi def ay pexe yoo xamante ne nii kat tey dund gi day day jaar day gën a ku fa dëkkul wala amoo fa nationalité da ngay sonn. ngi tey jii nii diggante États-Unis ak fi nga xam te ne ni moom mooy Mexique di fa jaar di fa dugg États-Unis ak Brésil mais xale yi ñu ngi fay faat d'une manière terrible alaaj ten mhm. waxuñu ko waxu ko bu ñu duggee biir États-Unis mais yow boo duggee état amoo papier fan nga jëm ndegam nit ñi nga xam ne sax légalement koy dugg États-Unis dañuy toog vingt ans duñu am kayit yow mii nga xam te ne nii nag dañ ne sax presque réfugié nga ñu jël la dugal la foofu noonu léegi kañ la la sa mbokk yi di gis kañ ngay dellu soit biir Sénégal donc loolu yëpp dafa nekk loo xam ne ni il faut faudrait que xale yi waxtaan ak ñoom ci ne ñuy jéem di góor góorlu mënut xëy sotteendoo bu ñu wekk lépp ci état bi xam ne ne lu fa sotteendoo nañuy jéem a am seen initiative bopp nit tàmbalee na fi cinq millionnaire nekk milliardaire nit tàmbalee na fi dix mille francs nekk millionnaire nekk milliardaire en plus nga jël tey sa trois cent mille sa yaay tegg jox la ko nga dem dugg di teele sa bakkan ñu ne mu ci diwaanu Fatick mouvement Fatick moo ñu ñor nga xam ne la ñuy demandé du président Macky accompagner ndaw ñi nga xam ñu nekk foofu ci Fatick nga xam ni souvent bari na ci ñoom ay chômeurs ñu jéem indi pexe pour mën a utal ndaw ñooñu les solutions dañu nekkoon ci benn caravane de civilisation ci week-end bi bu ñu sukkandikoo ci kàddu euh, Mamadou Sy mi nga xam ni mooy euh, président mouvement moo ñu ñor bëgg na nguur gi am waneen xooleen wu mu leen tout tuuti maanaam les jeunes pour ñu mën a am liggéey ndax bare na ci ñoom ay chômeurs ñu teewlu kàddu yi Mamadou Sy waxal yàlla teew te yàlla tax gis nañ ne euh, ku teg paan soo ubbee mun nga fee dem fu la neex ñëw paas loolu menace la boo xam ne am nañ ci njort boo xam ne bés bu fi jógee nekk loo xam ne luy naqare dabi la parce que pouvoir soo ko amee bëri war na loo yow yow war na cee taxaw jàppale ñu ba ëllëg duñ jooye leneen tax ñuy ñëw di yee président Macky Sall di la di la di ñaan aussi tamit ndaw yi nekk te nga xam ne amuñu xëy nga jàppale leen dugal leen ci ci usines yoo xam ne wala ci foo xam ne ñi ci amul métier ñu ci école formation yi former leen bañ génn ak seen i euh, diplôme pour ñu am ne dinañ euh, dinañ ko mën a déposer ci fi nga xam ne fa la ñuy munee wutee xëy pour di njaboot beneen bi fi may fermer mooy mooy euh, réew dëkk mënut a développer sant mu am ay usines Fatick boo xoolee monsieur le président waaw amul benn usine dañ lay ñaan. Hmm. gone fatigué yuuxu noonu ñu wax ci euh, conscientiser nit ñi ci danger bi nga xam nu mu garab mi am fële ci diwaanu bi ñoo na mouvement bi nga xam ni dafa boot ay ña alerte alerté ñu gën a sàmm kew gi foofu ci diwaan ñoo na lu mooy loolee itam euh, liggéeykat yi nga xam ni ñoo ki ca euh, diwaanu Rufisque daal dinañuy lance benn alerte ginnaaw situation ñu jàpp ni dafa xaw a alarmante depuis 2019 ba léegi ndax budget bi ci jingéej dañoo gis ni dafa dellu gannaaw ci anam gu doy waar nañ ci dellu soir xëy na suñu nag Cheikh Ahmed Tidiane Seck ñu wax léegi ci dossier bi nga xam ni suñu on ci diwaanu Casamance moo ñu ko moo ñu ko defaral muy conflit bi nga xam ni moo am conflit armé foofee ca fa féetee penk bët gaan euh, bët saalumu Sénégal conflit bu yàgg ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru décembre 1982 la ñu commencé woon ci benn marche pacifique waaye fa mu mujj mooy rëb xam ni jeexagul ba léegi ci Sénégal foofee ci diwaanu Casamance kon euh, indi ci ay njombe boobu les conflits jeexeeta la woon ci benn marche bari na lu Casamance nañ fu fekkee Abdourahmane Diallo. crise armée bu Casamance dal na ñeenti fukki at. ñeenti fukki at yi nga xamante ne dund nañu ko ci jafe-jafe yu tar lépp nag mu ngi door ci ab marché pacifique bi nga xamante ne mor ca Mangukuro jëm ca gouvernance bu Sigicoor loolee mu ngi xew fukki fan ak juróom benn ci weeru décembre ci atum 1982. dox bi amoon ci diwaanu Ziguinchor te dajale woon ay ndaw ay góor jigéen te bàyyee ko place bi ñu dippee Mango Krotu dem ca centre ville ba te ñu jàppee woon ne mbégteeg bànneex rek moo ci mujj ndekete mooy doon ndorteelu musiba bu doy waar ci diwaanu Casamance. fukki atum 1903 li nga xamante ne mooy doon conflit bu gën a mag ca Afrique enregistré victimam ca Jaabir di ab quartier périphérique bu Ziguinchor. mais cette fois-ci. bi ñu ñëwaatee alew ñu ay euh, loxoy neen ndax yoroon nañu ay gànnaay yu wuute ngir dal ci kaw institution yi rawatina préfecture bi ak gouvernance bi. ci bis boobu sunu larme bi rawatina ci waa gendarmerie nag am ñu seeni bakkante du ñu ay officier la seen bakkante rot fii ci Diabir. ginnaaw loolee ñi def ñaawtef bi armée bi di leen wër dugal leen kaso dóor leen ay dóor yu metti loole tax ki nga xamante ne moo di Sidi Badji daa wal lii di aile militaire bu Atika bu MFDC. vous el militaire bi nag ñu ngi ko taxawal ndax euh, circonstances yi amoon maanaam el armée bi daa ñëw dabu si mouvement bi amoon dañ yu MFDC wéetuñu benn yoon ci li nga xamante ne moo di seen xeex boobee nay jigéen yi nga xamante ne jàppale nañu leen bu baax a baax ci ay transporter ay armes yu mel ni ay engins explosifs. mais je pense que ce n'est pas ñoo àndoon ci ñu def kéem kattan ba Casamance euh, am indépendance am. alliance la Casamance. bref. moment où on a bi ñuy jàpp yenn jigéen ñi nga xam ne dañoo yoroon añe ñi ngi fekk ci biir pañe yooyee ay ndel maanaam ay. miin mines. diggante quatre-vingt-quinze ak quatre-vingt-dix-sept bëri na ci ay soldats nationaux yi nga xamante ne exécuté nañu leen ci diggante Babonda ak Mandina Mankagne cërment bu Ziguinchor. malheureusement nag militaires yi dañuy euh, daanu ci embuscade ndax dañu gis ñu sol ay tenue militaire ñu jàppoon ne ay militaire la ñu ndekete yoo boobu waa MFDC yi la. situation bu métti bile ca Casamance waral nekkul lu dul ñaari protagoniste ku nekk kenn si ñoom ni ni fetel yi ñooy régler problème bi. nguuru Sénégal li mu gisoon mooy ne mbir yi la ko fàcc lu dul wàllu militaire naka noonu itam fetel yi jàppoon ne indépendance bu Casamance yi ci armée yi rek la mën a jaar. ñeent fu ci guerre dafa doy organisation yu société civile di ñi nga xamante ne ñoo di état bu Sénégal ak waa mouvement des forces démocratiques bu Casamance. de hâter le pas pour une signature définitive des accords de paix en Casamance. Les dialogues, les discussions, les, les réconciliations, les concessions pour aller vers une paix définitive entre les différents pactes. tum 2012 ak ñëw bu président Macky ci bopp réew mi région bi daal di ab teg teg karal bu am solo lool même su fekkente ne léeg-léeg ñu enregistré ay pertes en veine yi nga xamante ne mu ci rébellion bi ca Casamance. Abdourahmane Diallo euh, fàttaliku gu neex euh, ñeent fukki at bi ñu commencé xeex ba ca Casamance ak léegi nekk ay victimes ci ay soldats ci ay rebel ci ay villages yu déplacé ay xale yu munte ay tool yu ñu def ay mines euh, Birahim sekkal yi dul gax du gaaw jax comme guerre boo xamee ne dafa enlisé wu enlisé wu li ñuy woowee accalmie gis nañu ko bariwul euh, fan yi ñu ñuy woowee exaction période bi mu nekk nii boo xoolee souvent mois de décembre buy waaye ci ngay dégg ñu am ay exactions yi yoo xam ne dafay am parce que tout simplement lañ euh, bëgg a rappeler wu au bon souvenir euh, de des sénégalais ñi koy def di yenn saa yi ñu nekk sax nu ñu duppee ay ay rebelle wala way fukk ndax ay coupeur de route la ñu doon wala ñoo xam ne ay ay bandi la ñu doon ay samba boy doon. mais li tax mu xaw a compliqué mooy am na ñoo xam ne bi ñu juddoo ci rébellion lañu parce que bu neenee la nee quarante ans am na tey ñoo xam ne ils ont trente cinq ans vingt cinq ans ñoo xam ne ils ont le de prendre des armes ña nga ca parce que fa lañ juddoo ci loolu lañ xam. Euh, li waral nag mu compliqué mooy dafa am loo xam ne ñàkk waxante dëgg fa am ci conflit bi mooy lan comme la ma doon wax sànq ci wàllug ay immigration clandestine am na ñoo seen xaalis ca lañ koy tibbee am na tey ñoo xamee ni tant que conflit wala luy nuroog conflit ça les arrange parce que finance ci la ñuy tekk gisoon nañ fi ay monsieur Casamance ay monsieur Nangam ay madame Nangam mais ni ils se sont plus sucrés sur le dos des Sénégalais tant par le prétexte de ce conflit que lañ ci def ci lu baax parce que wax nañ ko ci lu jëm ci wàllu jaayum drogue mu ngi ci chaque jour ñu ne leen nañu ay toolu wala lakk nañu ay ay toolu yàmba ay toolu cannabis parce que am na ñoo xëy nit ci lañu ci la ñuy dund maintenant nag waxante dëgg bi mooy fexe euh, li ñu li ndaw si doon wax sànq accord bu ñu wax signé ko ñu am ci parti yëpp mais nu ñu xool comme li euh, am na loo xam ba léegi mu ngi si suñu suñu deret mais am na ñoo xam ne ruusee na muy ci wàllu kilifa diine muy ci wàllu kilifa aada ku ci nekk daal lu mu ci mën a wax te dox ko ci wax ko ci ba ñu génn définitivement ci ci situation boobu Modou Fofana euh, ñu ngi lay jaajëfal. jërëjëf Alaaji. jaajëf maam maa ngi say lenge. naa ne ka fi nga doxalee ak Baye Manta. peuple rendez-vous bi kon ci kanam point sept ci tës. incha allah jaajëf waay. jaajëf euh, Woup Sathié. Modou Fofana nga ne ta bëgg. maa fekke. maa fekke waaw waaw.